عليه ولا أيديهم ولا بصرهم ولا تطويله ولكن الله والصلاة والسلام على من أخرجنا من ظلمة الجهل والشرك والنفاق والنار سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه جزم الوفاق وعلى من تبعه بإحسان من جملة الآفاق أما بعد فهذا اليوم يوم مبارك لنا فيه شيء فيه لم نشارك وأحمد الله تبارك وتعالى على ما جاء به فيه المنتقى عليه السلام ولجميع المقتدين وإن هذا اليوم يوم أكل وشرب وعتق بفضل من شاء فاقتدر وما شكر الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لم يلد ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الخيرات bis bu mag bi nga xam ne ci la ñu génnee ci jaamu yàlla bu mag bi koor yàlla ñu ko yàlla nangu tey nag bis bu mag la boo xam ne tam tuddee ko ay mu ngi liggéey mu ngi liggéey ci barab arab yi ñuy wax aadal la yow ci la jëm gi yi di dellu lépp ñu dajale ko jox ko suñu borom tabaaraka wa taala am ñu wax ne dañ ko tuddee ay it ndax lan mbégteem suñu borom ak texeem la koy delloo si jaam yi ñëpp koy am ginnaaw bi ñu amee dënk ak dënk ci weeru maag bi ñu weeru koor ñu wax ne dañ ko tuddee ayit ndax lan bu julli yi jullee ayit ba dalee seen kër day set ci ay bàkkaar moo ñu tuddee ko ayit boobu bi baatu dellu ñu conseillé ko ci baatu dellu loolu lépp day tegtale ko bis bu màgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne euh, bis bu ayit bu ñu yéenee jëm ca julli kaay suñu borom dana leen tiim ne leen yéen samay jaam waroo ngeen woor weer ngir man julli ngeen nii ngir man jéggal naa seen bàkkaar loolu ñu ko mën a def nee na radiyallahu anhu suñu borom bi suñu korite ci la bind ajja bi suñu korite ci la bind dara bi ñu tuddee Tuuba suñu borom bi ko dëkkam bi bi suñu korite ci la ci la tànn yonent yàlla sallallahu alayhi salaatu wasalaam ne ko yow laa yóbbu wax yu moom ko yóbbu yóbbu ci sama yónent ci suñu projet la baal su borom tabaaraka wa taala ñu suñu projet ci la ñu julli yoon bu rëy ginnaaw bi ñu ko defee ñu ko defalee jaamu yàlla bu tuuti ci jëmmam waaye tam defal nañu jëngal lu rëy rëy rëy ginnaaw bi ñu ko defalee ginnaaw bi ñu ko mooyee mooy yàlla yu rëy moo tax shakakumullah ala sa siyaam sa na leen la dund ak yàlla sëñ Tuubaa wax ko ni jaamu ngeen seen borom ci weer bi waaye ëllëg ngeen mën a xiyaar di ngeen tàbbi àjjana du ngeen mar bu ngeen bu ngeen xiif ndax mar bi ngeen jàppante ci koor bi ak xiif bi ngeen jàppante ci koor bi kon ab jullit bu defee ko war képp kattanam sañ naa yaakaar amul beneen jëf ci islam boo xam ne jullit bi dina ko def lu dul mën na koo jural àjjana jaamu yàlla yii nag jullit yi ak woor yi ndax ñoo mën a jural àjjana loolu jullit bi dafa war a fas yàlla dëgg ñu ko nii rek par hasard kon loolu bàyyi ko bu baax baax tekkiwul ne mooy solu bees rek ak lekk lu neex doom it li ñu gën a bëgg mooy jullit yëpp bi suñu borom nan la ko suñu borom sant na leen ñoom suñu borom jënd na ko ay bàkkaar yéen moom la ko dañu bëgg mu am ñu bàyyi xel ni ci ne bii moom tey jii bisu iid la suba bisu iid la ginnaaw suba ñëpp iid la weer yëpp bisu iid la lu tax ngeen ne zajrun wala waayu boobu mu ngi ci dal dinaa soñu ma wala ma may tëx lu tax damaa def leneen lu may tëxoo sama dund def ma leneen lu may jariñ sama dund moo tax sama dund nekk fenn kon loolu wax yooyu yu xam na ci islaam saa boo xamee nit ak dundam lépp ci li ko yàlla di jëlee bàkkaar dundam yëpp ay la te mooy préparation pour àjjana kon loolu yàlla nit yàlla di gërëm yàlla ñu ko yàlla defal weeru koor nag demee itam ah, jaamu yàlla bi moom demul fi la nekk yàlla boo xam ne problème boo xam ne bu ci bu ci jullit bi génnee dafa am juróomi la jëf yoo xam ne war naa fexe ba mu tax ko ci anam yëpp ba ci jëf mooy nii ku mu ñëw doo jaamu yàlla rawatina la ko ñaareel mooy comme la fi liggéeyu yàlla daa ko gënal jëm lu mu def lu mu dig dama def ci teral bàyyi yaakaar naa ne bàyyi def bàyyi na ko jëg yëpp loolu topp liggéeyu yàlla mënu ko paas loolu la dafa war a taxawoo ba ca des mooy ragal yàlla ragal yàlla ñeenteel mooy bëgg jaamu yàlla ak bu neex sa xol ñi muy ñi koy amee ci xol bi nañuy góorgóorlu ba loolu mu topp ñu ci at yëpp naan bi la mbokk yi xam ne bu génn weer ko rek bàyyi boo daal naan bi fukki rakk ci koor bi fexe bu koor bi jàllee ñeenti rakk yi moom na la dox ba at mi jeex bis bu nekk bala nga tëdd wala bu ñëwee bu ne ñaari rakk yi moom na la dox loolu tam lu ma tabaay yi xelal ba ko juróomee mooy rahmatullah tabaraka wa taala ci woor dafay gëm nga xam ne amul kenn ku koy contrôlé mbaa nga koy seet feneen fu mu mën a wér day saxam kooram ba jënd soo jënd soo lekk du naan loolu la Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne loolu mooy day tax rafetal ihsaan mooy an ta'budallaha ka'annaka taraahu ngay jaamu yàlla ba mel ni yàlla naa taxaw sa kanam nga ko gis loolu mbokk yi du woor ko def mer naa woo mooy kon loolu yi ñu bàyyi ko bu baax bokk moom ko ko ci mujj mooy ak ihsaanul lil fuqaraa wal masaakiin dimbale ki nga tànn ni ñu koy aajowoo ci koor yi nañ koy wéyal ndax loolu la ñu ngi sant ittaqu naara wala bu ci tàmbale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na benn xaaju tàmbale ma ko jox sa boppam jullit mu doge ci kooram mën na daa fegal sa wala kon mbokk yi yaamu yàlla yomb na ku man mën na ko ku mënul mën na ko ku bari mën na ko ku néew mën na ko yàlla doole ci yàlla yombalal ñuy doge suñu yëpp di ñaanal suñu kilifa yi diine yi réew mi suñu borom jàngal seen taxawaay te yokk na sutura élection yi génn muy élection yi yàlla na ci jàmm ci sant yàlla bu baax ñi nga xam ne moom la yàlla dogal ñu tàmbali seen loxo tam yàlla na yàlla kàttanal yàlla na yàlla suturaal yàlla na yàlla may engagement yi liggéey yëpp mooy nag tax ñu mën koo def ndax loolu mooy yeneen yu loolu yëpp ñu nuyu waa jumaa bu baax baax rawatina mag ñi di la ñaan suñu borom yàlla seen taxawaay ni ma koy faral di waxee rek toujours bu lu mel ni taxawee ci kon bi seen taxawaay kon loolu ñu bàyyi ko bu baax baax te xam ne ndawi koñ bi seen morom yi taw ñu ne fii jumaa ji ci yëngu ci def seen ñax di di yëngu bu dégg ko ci te yàlla kon loolu ñu ngi leen koy fàttali ñëpp nga xam ne yéen ñu ko ko bokk ndaw lislaam boobu am complexe di yëngu ci jàkk ji di def ci jàkk ji di waaxu dana ko yëngu def ci jàkk ji loolu boo ko defee di nga waaxu dana feneen boo xam ne ndax coow dong la wala jaaxam dong la kon nañu bàyyi xel ne ay valeur moom nit ki mënu koo am lu dul da ngaa nekk ci lislaam dund ci lislaam saa boo génnee lislaam dund ci leneen yaa ngi dund ci loo xam ne amul benn njëriñ kon ndaw yi ñu lance message boobu ñoom ñëpp ñu góorgóorlu ci bu baax a baax mbaar meer nga xam ne moom la ñuy def muy jullikaay dañoo bëgg bu indi njàng rek ñu sonn ko mu nekk opération bi ñuy def nag mooy képp koo xam ne gëm nga ne sëñ Tuubaa ñaar fukk ak juróom-ñett yam doon laaj ci jumaa ji yàlla day tax ak bëgg a fett li mbindéef kanam seen kanam seen loolu fana ko taala ñaar téeméer fii ak ajuma na ko mu kàllam bu nekk fexe indi ñu dajale ko ajjuma mooy rendez-vous bi incha allah képp koo xam ne dégg nga ko na ko jotali sa moroom boo demee ci kër say dëkkaloo jotali leen fa ngay toog di waxtaan jotali leen kenn ku nekk da nga génne ci saw ñax ñaar téeméer bu teewee tey baax na bu teewu tey ajjuma la ñu lépp teew incha allah bu fexe ba ajjuma cinq cent mille yi daal di mën a teew ci kanamu yàlla sëriñ alxaali boobu ak sëriñ ñu njëng ak ak gaa yu mel noonu nañu dugg ci koñ bi bu kër kër kër kenn ku nekk ñu laaj la addiya yooyu ñu def ko ñu maaj ndax bu fi gaa yi jigéen ñee mën a yegg kon loolu day yàmb na te naaj bi te am ñu nekk ci naaj bi am na ñu nekk ci naaj bi moo tax nañu ko yemale fii te laaj ko aju ko ci nga xam ne jël si baax bu jël si wul na nga def ñëw wala yàlla إلا رب العالمين